dañoo fas yéene delloowaat am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen leen wax ne nag tey ku ne xam na ne ñu ngi ci àllarba maanaam mercredi ah 30 juin 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu fa xëy indi tey ñu dikkaat ak yéen ci jàngat bi wala si waxtaan wi bokk ñu dem. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mercredi 30 juin 2021 ni ñu ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi du suñu làmb tey xëtam mu njëkk fa mu ca xëy génn fenn la maanaam ndaje mu mag mi nga xam ne tey moo war a am fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop muy super ndaje noonu la ko yëglikaay bi tuddee tey ci ngoon premier maanaam war a dox ci diggante ki nga xam ne nii moom moo di Papa Sow ak ka nga xam ne moo di Siteu ngir waajal seen combat bi nga xam ne nag le premier août la ñu ko war a bëri yëglikaay bi daal xëy na tey wan ñu ñaari mbër ya ci aw photo woo xam ne wu yanja yanjal la yemu ca moom yëglikaay bi di suñ làmb tamit ñëw na ci weekend bi nga xam ne ci la ñu jëm muy weekend boo xam ne bu nara neex la ci amateuru làmb yi maanaam ñeenti grand combat ci benn weekend parce que bu fekkente ne ci samedi ji la maanaam boo demee fa nga xam ne ni moom moo di ca arène nationale da nga fay fekk nga xam ne ni moom moo di qualifié numéro 2 ak général bu Fass jooju bu la neexee tamit boo demee ca stadium Iba Mar Diop da nga fay fekk nga xam ne nii moom moo di Ndongo Lo ma nga xam ne moo nekk ca Sanjambur ak Cheikh Tidiane Niang mu parcel foofu tamit ki Yékini moo fa jaar loolu ci samedi ji ci lay am ca dimanche ja tamit bu nu continuer ka nga xam ne ni moom moo di Assane Ndiaye tamit maanaam boo bëggee dégg dëgg boo demee stadium Iba Mar Diop da nga ko fay fekk moo di Mame Balla mi ngeen xam boroom top cinq ak Mbaye Guy gi waaye ci dimanche jooju ba tey Dieye Sène ak waa Dieye production tamit moo di ci arène nationale da leen fay fekk ñu indi Gris 2 ak Abdou juuf yëglikaay bi moo tax daal mel ni ki daal mu xëy tey wan ñu ñeenti combat yooyu yëpp mel ni ki daal samedi jëg dimanche ji moom amateuru làmb ba mu neex yaay xool fa la neex nga dagg sa billet nga dem fa waaye làmb ji moom jax la nar a def leen loo xam ne nii wala boog ci kenn boobu lamb joo xam ne nar na caa am ci dimanche ji mu war a dox ci diggante gride ak ka nga xam ne moo di Abdou Diouf ka nga xam ne nag moo di Ngagne Diagne bu immédiat moom la mu xëy xamle dana li am ba des daal Gris moom ci boppam avenir am fi mu nekk nii moom moo nekk enjeu maanaam daal su bëggee dégg daal Ngagne Diagne loolu la xëy tey gis ci boobu combat keneen koo xam ne tamit wax na ci beneen combat muy combat bi war a dox ci diggante ki nga xam ne ni moom moo di Mame Balla ak Mbaye Gouy Gui muy Zalba Zalba daal la mu gis mooy cinquante cinquante la gisee boobu combat ndax daa jàpp ne ñoom ñaar boo waxal boo nattee ba ca biir daal ñoom ñoo yem beneen combat boo xam ne tamit day am te sambay tëgg ko ci samedi ji mu war a dox ci diggante Coly numéro 2 ak général bu Fass maanaam yëglikaay bi la mu xëy xam ne daal nee na gros test wala boog grand test pour ki nga xam ne moom moo di Coly Faye maanaam daal natt boppam goo xam ne gu mag a mag goo xam ne war na koo def ci bis bi nga xam ne nii moom la war a bëre ak général bu Fass kenn koo xam ne moom bëre na ba daan ba mu daanee Gambien nag muy assurance bu mbuur ci dimanche ji nu génne que mu xëy sampal am ndënd du kenn su ko dul Sa Thiès Sa daal assurance nee na ko bu dee pare nga man pare naa ndax nag fi mu nekk nii ñu bëree moo fi des ndax daal jàpp na ne amut loo xam ne ni rawee na ko ko ci làmb wala mu def lu mu deful loolu nag du sama ay wax waxi assurance la nee na kon Sa daal na jël sama avance ñu bëre keneen koo xam ne jël na avance moom ba fas yéenee bëre mooy ama neex bu tëngeej moo tax nag mu fas yéenee bëre la xëy di ko dànkaafu muy lacrose ama neex daal nee na ko bi yoon moom feu di nga ko gis maanaam safara soo xam ne suy tàkk la jëm si ci sa kaw te bu keroogee pour nga téye ko dina jafe lool lool lool loolu waxi ki nga xam ne ni moom moo di ama neex la ci biir yëglekaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu làmb ba tey bu nu continuer dem les arènes les arènes moom kan fay fekk. mooy Balla Gaye numéro 2 moo xëy tey ngardaajoo les arènes Balla nag moom mu nga ca INSEPS ga ca Paris di préparé digganteem ak Bombardier mel ni ki nag seq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu ci biir les arènes moom moo di Rokhaya Thiam Balla daal maanaam digganteem ak Bombardier daal la jàpp ne su fekkente ne xeex da ca am day na na su keroogee daal moom fa mu nar a yóbbu Bombardier du neex Bombardier du neex ña ànd ak moom ndax duma yam ko fas yéene duma moo nar a metti yemu ca moom Balla ñam fas yéene bëreel tamit ku ci nekk daal sànni na la ab baat moo xam ama seen la Balla digganteeg moom maanaam daal maanaam li ci am mooy maanaam ñëw jël sama ramas parce que nag ku ne xam ne na ëma daan na ko ñaar yoon diggante ma giri tamit lam ca xamle lenn la dana foofu moom am leeral moo fa war a am te itam leen sama diggante giri bordeaux faw rek mu leer naññ naññ ba ñëpp xam ne man ak moom maanaam du nu benn yemu ca moom la kenn koo xam ne tamit duuraat na ko xeer muy Modou Lo la roi des arènes Balla ne na buñ ko ne moom mooy roi des arènes wala mu jàpp ne mooy roi des arènes tamit mu Modou Lo ñu mu wut a génn fenn di fësal ak roam te ma nekk ci làmb ji Balla ne na loolu moom bu ko kenn xalaat ndax Modou du ko def tey du ko def suba loolu nag du sama ay wax waxi Balla Gaye 2 yemu ca ne na tamit maanaam ati làmbam daal ne na bés bu yeggee ci at yi nga xam ne ni ca la war a aditee làmb moom Balla ne na jàpp na ne daal su kerogee day bàyyi waaye ñeenti combat yi mu sóobu daal daal ne li mu fas yéene daal gagné ko avec la manière ne na daal lii daal mooy li mu fas yéene def mel ni ki daal tey jii moom seq na waxtaan wu yaatoo yaatu ak yéeglikaay bi nga xam ne nii moom moo di les arènes les arènes googu ba tey buñ fa demee fekkaat fa Gris 2 ak Abdou mel ni ki nag ka nga xam ne nii xëy na di ca wax koo xam ne nekkoon na écurie Fass di Balla Diouf te tey mu nekk fa nga xam ne moom moo di Jàmbaar Wrestling Academy nekk fa entraîneur ca Parcelles Assainies bal nag moom Gris 2 lay daan kaafu ne na kon xam ne daal Abdou juuf nekkul mbër moo xam ne dafa limité ci wàllum bëree pire ne na mbër la moo xam ne day am na bëre de kon nag kuy bëre ak moom na nga xool li ngay def bu baax a baax a baax a baax a baax loolu waxi Balla Diouf la jëmale ko ci boobu combat bañ ko ca laajee kenn koo xam ne laaj nan ko muy Souleymane Sissoko moom nag médaille olympique la ci wàllum boxe maanaam daal yëglikaay bi xëy na tey laaj ko ci diggante Papa Sow ak ka nga xam ne moo de Siteu moom nag Papa Sow la xëy daal di ko xamal ne ko poids bi mu gis mu yor daal la jàpp ne na ko gën a wàññi ngir nag bu yeggee ca combat ba mu gën a gaaw gën a explosif ba nga xam ne lu ko mu neex mu mën koo def ci aw yaramam loolu waxi ka la ci yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di su yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes leneen leneen loo xam ne ni am na te yëglikaay yi ñëw ci muy ki nga xam ne ni moom moo di suñu làmb wala les arènes muy génnug àddina saa kajoor numéro un ma ngeen xamoon mu daan ànd ak Mor Fadam te dëkkoon fa nga xam ne moo doon ca géejawaay moom nag moo génn dem àddina wuy ji boroonam nekkoon koo xam ne ni daal maanaam xamoon nañ ko ci làmb tamit mu daan ànd ak Mor Fadam lu baree baree bare kon ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko aljana moom suñu papa jooju saa kajoor waaye di ñaanal xaritam ba nga xam ne tamit moom la daan àndal muy Mor Fadam nga xam ne moo ko jiitu ak bépp mbindaafoon boo xam ne yaa ngi tëdd ci suuf àddinaa deme noonu gomis kulli nafsin saay xatin mawtin la maanaam bëkkan bu ñam dund da nga masa ñam dee te gomis tamit jàppal ne lu tooy dana masa wow kon li am solo daal mooy ñu rafetal waaye leneen loo xam ne am na solo itam maanaam gaa wax gi ci dëkk bi te ma déggoon waykat ba ne wax baaxul gaa wax baaxul maanaam li ko waral mooy dégg nañ ne Sa Kajoor décédé na rek wala génn àddina ñu ne Sa Kajoor numéro 2 la tàgge doomi jàmbur te moom mu nga ca Espagne nekk ci jàmmam di dund dundam kon nag ñiy bind wala ñuy site internet wala mu di journal ak kum ci mën a doon ma commencé ko ci man ku ciy wax ay wax wala ngay siwal ay xibaar war nga koo seetlu ba mu leer naññ ndax nag buñ ne ne kësug taru kës kër gu ñuy tasee xibaar nga ay xibaar da nga ko lijjanti xool ko ba mu leer nga dóor koo siwal rawatina diw faatu na kon nag saa kajoor numéro 2 moom tamit yal na ko yàlla may fan wu gudd gën a wéral ay cëram defal ko bépp doomu aadama loolu daal gumis maa ngi koy wax sama bopp di ko wax képp koo xam ne yaa ngi yëngutu ci peres presse. a ngeen jëf kon loolu la yëglekaay yi indi tey moo xam sunu làmb la moo xam les arènes la ah ñuy nuyuwaat ñëpp di jaar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq. ah di ñaan jàmm Sénégal yàlla nag ko fi yàlla saxal waaye def ko si àddina bi yëpp barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax yaakaar naa ne ah foofu ñu ko tëjee euh, kul nafsin saayxatin mawtin loolu waxi suñu borom la bakkan bu ñam dund da nga mas a ñam dee waaye lu mas a tooy da nga mas a wow ah muy muy loo xam ne lu leer naññe la ah yàlla nag moom moo ñëw ak i dogalam jël koo xam ne defe naa ci monde làmb la bokk muy suñu papa ku ne xamoon ko digganteem ak Mor Fadam ku dégg bëccëg ñu daan ànd foo gis Mor Fadam wax dëgg yàlla gisaan ko fa euh, ñu leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla jigal te xare aljana moom saa kajoor nag Mor Fadam ku ne xam ne dese génnoon na àddina at yi waaye suñu papa saa kajoor démb lay doog a àddina ak keneen koo xam ne tamit ancien gloire la woon nekkoon si làmb génn àddina moom tamit ñun nekkoon mbër bu ñu daan wax giren coor yaa ngi dégg génn àddina fii ci Parcelles Assainies moom tamit ñu ngi xam ne dimanche passé ñu ngi jàngate loolu fi nga xam ne moom mooy les arènes moom Giron Coor moom tamit ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare aljana barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah di ko jaale ak njabootam yëpp yëpp yëpp yëpp parce que ah ñun ñuy xamal ñoo xam ne ni ay mbër lañ ci làmb ji moom mooy seen wayjur dafa naa ne loolu la ñu jàngat ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di les arènes Giron Coor muy ko mel ni mbër bu ñuy wax jegaan ak Boy Sine ñoom ñëpp di ay mbër yoo xam ne ñu nga nekk fa nga xam ne ni moom moo di Rock Énergie kon kooku ñu ngi koy jaale ay waa Rock Énergie yëpp di ko jaal waa parcelle mais di ko jaal képp koo xam ne tamit daal ci monde làmb nga nekk mu suñu papa gi den Coor ak suñu papa Sa Kajoor numéro un waaw loolu moom ay mbir la yoo xam ne ah àddinaa ah, tëdd noonu loolu moom du man a ñàkk parce que suñu borom a ko waxoon tey waxam du dañ waaw ah, bu fekkente ne nag am na lu ñoo xam ne dañ ko siy dolli ci mbir moom mooy rek wax ka ni par rapport ak tey ñi xam ne ni dañuy yëngutu ci information maanaam di ko siiwal ñu leen di duppee ay duppee ay taskatu xibaar euh, moo xam tele télévision yi la télé classique yi moo xam rajo yi la moo xam presse écrite bi la moo xam internet bi la fu mu ciy mën a doon parce que lépp ay xarala yoo xam ne ay xibaar daf fay jaare waaye li ñuy waxaat rek di ko commencé ci man Babacar mii di joxe tey ay xibaar yi làmb lu ñuy wax wala di ko siwal nañ koy gëstu ba mu leer nañ nañ waaye maa ba maa njëkk siwal xibaar gomis wala maa ko njëkk génne wala diw ci man la njëkk a waxe loolu jarul tax ngay def yenn yi bay tàggee ku nga xam ne deewul parce que démb man après ay appel yu baree ma woo gomis démb si ngoon naan ma saa kajoor daa génn àdduna saa kajoor numéro 2 numéro 2 ah te saa kajoor jamono jooja mu nga Espagne yaa ngi dégg nekk si jàmmam après yaakaar naa bu woo sax Euh, fekk ko muy jokkoo ndeke bi mu paree Lamine la doon jokkool sax bu Lutte TV kon daal mais nag àddina tëdde noonu xëy na bon ñi koy def damay jàpp ne xanaa jubluñ ci lu bon laa foog dañu dégg Sa Cadior te xamuñu ban saakajoor la te xamuñu ne Sa Cadior numéro 2 dafa am numéro un loolu nag il fa lekk nga topp làmb pour mën ko xam dafa am numéro un saa kajoor numéro 2 bi ngeen xam te guy gi doon ne moom mooy idolam tax guy gi dugg ci làmb ak yeneen mbër yu bëri ci biir géejuwaay nekk mën a bëre macha allah amoon avenir u làmb yàlla indi ci moom ndog-ndogu feebar ba tax carrière mën nañ ne mu taxaw mais terewul tey yàlla dimbali na ko ci njàppandalu ay nit yoo xam ne nii euh, jàppale nañ ko ci wàllum faju bokk na ci première dame ba tey mu nga nekk Espagne macha allah nekk si jaamam yaakaar naa ne sax mu ngi ci liggéeyam léegi kon kooku. yàlla na gën a gudd fan di ko ñaanal bépp doomu aadama waaye daal nañuy téye ci siwalum xibaar yi loolu moom nañ si bàyyi xel bu baax a baax ci sama bopp nag laa koy commencé ndax olof ne na mbay si sawewu tànk gomis yaa ngi dégg balaa nga naan sangul ah balaa nga naan nit ki sangul na fekk yow nga raggu ba set wecc yaa ngi dégg loolu mooy li nga xam ne ni moom la ñuy wax si côté boobu bu ñëwee nag si yëglikaay yi tey boo xoolee ah super ndaje fa nga xam ne moom mooy ca stadium Iba Mar Diop war a dox ci diggante Papa Sow ak Siteu muy ndaje moo xam ne amoon na fi stade Marius Ndiaye Pa Abdou Fall moo ko defoon muy komba boo xam ne mois d'avril lu daaw lañ ko waroon bëri yàlla dogal coronavirus bi ñëw ca mois de mars combat ba amatul defe naa ne avril jàllaat na fi ba tey ñu ngi ci mois de juin ñu war ko bëri le premier août kon defe naa ne combat bi bi taxawee ak léegi def na at ak presque tuuti. yaa ngi dégg bala bu sax léegi mu jëm si deux man nga ne waaye loolu lépp moo lay wan ne rek jàmm bi day sabablu rek mais yàlla mooy dogal ba Abdou nag nekk na koo xam ne tamit tey ci làmb maanaam am na lu mu servir làmba ah, parce que am na ay moment yoo xam ne làmb soxla woon nañ ku mel ni Pape Abdou Fall ci leadership ci côté promoteur te jamono jooju daf fi nekkoon ndax am na moment yoo xam ne ku xam ne suñu papa Gaston Mbengue ah tëggatul woon parce que taxawoon na nekkoon ci yeneen yitte ko euh, laay ay ndog-ndog daloon si kawam Petit Mbaye génn. kon moom moo fi desoon ak promoteur yi mu fi desoon doon moom Pape Abdou Fall moo xam ñoom Assane Ndiaye la ñu koy ni suñu papa suñu Modou Niang ñoom Dieye les Sambay ñoom Kandji ñoo fi desoon moom ab Pape du nekkoon koo xam ne nekk koo xam ne yàgg na di tëgg ay grande affiche defe naa ne affiche bi mu indiwaat tey affiche bu mag mag la kon defe naa ne euh, tey ku dem stadium Iba Mar Diop ah, euh, à partir de 17h da nga fa gis ndaje mu neex ndax tarkindaa yi jàmm gën yi ak waa parcelle euh, loolu defe naa ne ah. loo xam ne la kenn xamul maanaam daal lu départ la parce que Siteu su waree bëre Papa Sow Garga de war a bëre ak Mama lamin te Mama Lamine nag Siteu bokk benn écrit guddeeg bëccëg ñuy nekk di fanaan di yendoo di yeewandoo di di entraîné waaye Garga de Papa Sow di yeewandoo di yendoo di bokk lépp ah kon defe naa daal tey Pa Abdou Fall la nga di ci jàkkaarloo du yomb waaye li ñu ciy wax rek mooy ñu sensible ñu waxat suñu kàddu donte néew na wala ba suñu kàddu amul njëriñ waaye l'essentiel que dinañ wax suñu xalaat rek mooy violence bi nañ ko ci moytu violence bi ñuy def nañ ko bàyyi ci làmb làmb méritowul loolu làmb sport national la na ñu fexe ba tey nañ dugg ci bis bi bés bi ci bismillah rahmaan rahim mu jeex ci alhamdulilah rabbil alamin ku nekk ñibbi si jàmm ñun loolu lañ ciy ñaan parce que tamit loolu moom moo war a am violence faju dara maa tey saaga yàqate tojate pour man ku amul argument moo koy def yàlla nañ yàlla may argument bu ñuy xel di xalaat ba bañ di def yenn yu ëpp yi waaye ndaje la mu doy doy waar moo xam ne daal dina neex tey lool buñ ci jógee weekend bi tamit nar naa sarse parce que li tax mooy gomis maanaam fi mu nekk nii yow liñ gars yi daan wax yaay choisir waaye fii itam ci làmb ji bii weekend moom yaay choisir ndax buñ la nee samedi qualifié numéro 2 ak général bu Fass ñu nga arène nationale c'est Tidiane na Cheikh Tidiane Niang ak ki nga xam ne nii moom moo di ndongolo ñu nga stade Iba Mar Diop ak Mbaye Yékini loolu yaay choisir samedi kon parce que foo ci dem gis làmb parce que combat yëpp a neex ñu ne déet ne waay dimanche ja arène nationale Abdou Diouf Gris 2 Dieye Sène Dieye production foofu yaay choisir ah ba tey bu la neexee même ci dimanche jooju mbay guy gi ak Mame Balla borom top 5 ca stade Iba Mar ak Assane Ndiaye ah, kon weekend bi nar naa tàng nar naa neex muy nekk loo xam ne nii kon soit soit lay doon rek waaye loolu moo lay woon rek xëy na lépp li ko ni nag boo boo xoolee bokk na ci corona bi parce que tax na journée yi amu kon daaw daje yi fi nekkoon ren mu tax mu chargé mais foofu tamit dañ ciy félicité monsieur le ministre Matar Ba ci coopération bi mu am ba ubbi stade que kii mën na tëgg arène nationale ki tëgg Iba Mar te kenn du yàqal kenn ku nekk tëgg sa journée jàll te xëy na su deful woon loolu ah dina loolu ci promoteurs yi dina metti ci yéen bëri ndax kon bëree ñu ci baree baree baree bëri ren du ñu bëree assurance moom ginnaaw ba mu daanee Gambien ca Mbour ka mu sampalam doon mooy Sa Thiès mu duubalees mi daan Moussa Ndoye dana ko daal kaay ñu bëre loolu daal la wax waaw loolu la wax euh, zal ba nag jàngat na comme ba bi nga xam ne nii moom moo war a dox ci diggante mbay Guèye ak ak ki nga xam ne moom mooy Mame Balla moom nag dafa jàpp ne cinquante cinquante la zal ba loolu la gis en tant que technicien moom nag di koo xam ne yaakaar naa ne ku ne xam na ko mu yor écrit zap ñoom ngeer ah ku ku ku tudd ngeer sa dina dem ci en 2000 te ñu ñëpp yaakaar naa ne zal ba ah yore na leen tàggal leen kon defe naa bu waxee loolu itam xel war na ko mën a bàyyi xel waaye man ci benn côté dama naan cinquante cinquante du yomb mu am ci sport man sama gis-gisu bopp laay wax parce que tax mooy mbay bal da jiitu si làmb def lu doya doy waar ci làmb bëreeg ay champion daan mbay juuf ma nga xam ne mooy seen mag ci bawal te mbay dàq ko bëri ci bawal yombul kon dama naan favori am na ci combat bi bu ñu demee ci côté làmb dëgg dëgg dëgg mën nga ne ki nga xam ne nii moom moo di Mame la moom mooy favori wu combat bi parce que loolu moo amaa parce que nag moo ëpp mbay expérience u làmb moo ko ci jiitu te am na lu mu wane loo xam ne mbay wane ko mbay na xale la boo xam ne mu ngi ne ci tracé di dem outsider la bu nga xam ne bu jara bàyyi xel la boo xam ne la ah nekk favori ci moom taxut nga daan ko parce que favori ci ay kayit la waaye du yegg si ci ab géew wala si terrain bu ñu fa yegsee moom ah day day daal di ci xaw kon boobu combat day am zal ba loolu la gis ama neex moom lagros na ne la xam leen daal bëri woon nañu mu am na mu demee waaye nee na ko daal bii yoon moom da nga gis lu tàng jër safara da nga ko gis de la moom ama na ko wax boppam ak la mu nar waaw waaw ngañ jaañ suñu papa ñu koy nuyu di ko siyaar bu i rajo wala ITV moom nee na diggante Gris ak Abdou Diouf daal nee na ah avenir u Gris 2 daal moo nekk enjeu waaw wax na dëgg ndax nag Gris 2 ci defet la jóge diggante mag rëg-rëg defet bu méttee métti bu rëy kon defe naa tey bu jëlee mbër mu mel ni Abdou Diouf Abdou Diouf miin faas lool daan ba daan magam Gris Bordeaux ah kon waxuma la enjeu waaye romb na enjeu kon Gris 2 daal li koy xaar dimanche moom tamit lu 10 à lay doon Balla Gaye numéro 2 tey moo roqee ci am seeq nañ waxtaan wu yaatu ci les arènes Balla nag mu nga ca INSEPS di nga ca Paris roqee ci am ñu koy nuyu di ko ziar nekk journaliste bu mag nekkoon fi sunu làmb yàlla dogal mu Europe di fa daan dooleem waaye tey gis nañ ne mu ngi liggéey ak waa les arènes muy loo xam dañ koy rafetlu ñu ngi nuyu la les les arènes yëpp ah ñoom équipe ba yëpp. Balla daal Bombardier moom daa mel ni daal Bamba nee na xeex Balla ne daal ay bu ñu xeexee dana bu xeex ak man Balla ne la di nga gis loo xam ne nii ah ah xaw ma loolu lu muy te xaw ma daal Balla daal la mu naral ba ma jeex xam naa dana metti bu xeex amee. xaw ma da ko nar a dóor ba mu tëddal boppam xaw ma waaye daal moom pare na ñu ngi ko wane nag ak ay rastaam combat bii nag moo Gris Bordeaux la woon photo yi ay bés bi bés bi a metti woon ca Léopold Sédar Senghor Balla Gaye de Gris Bordeaux lii pour làmb melati ni dina jafe waaye xalaat naa ne ah ay bés a ngi ñëw yoo xam ne man naam nga gis li waaye kere rastaay Balla yi lu doyoon waar lu yéeme woon ne na tamit diggante mu Eumeu Sène ne na ah, foofu moom day maanaam daal vengeance maanaam il fallait que parce que Eumeu da ko daan ñaari yoon foofu fayu dafa war a am loolu la bëgg ndax dana yomb dana yónni yàgg ndax nag koo bëreel deux fois mu daan la bu ngeen waree bëri troisième fois ah xam naa ne mu daan la moom lépp la koy gënal du ko nangu moom la waaye ndax ëmma itam dina nangu ma may Balla dara ci moom parce que koo wax mu ne ëmma bête noire am la ndax ëmma day dëggal loolu di ko continuer ndax Balla day weddi nit ñi loolu yàlla nañ ci yegg ak jàmm diggante ma giri ne na danañ koy maanaam lu ñuy clarifier la wax na dëgg parce que Balla mësul gagné combat ci ay avertissement c'est la première fois ci carrière am ñu gis mu gagné combat par avertissement muy diggante ma Gris Bordeaux kon bu ne lu ñuy clarifier la wax na dëgg boobu combat jëlli wal bit gàng jotu caa am waaye loo ci mën a dégg moom moo gagné parce tamit Euh, euh, décision arbitrale avertissement lépp si jeu la bokk noo ci gañee rek tamit da nga yóbbu sa ndam yóbbu sa drapeau waaye nag moom gëm na ne dañu war a clarifier maanaam jël la am diggante ma giri ñoom ñaan nag xam naa ne seen combat maa la ko wax fii jàppal li ma la bis bu diggi ni jubat na ñu ngi war a bëri da nga gis lu di nga lu garaaw a garaaw a garaaw ndax ñoom ñaan ñëpp ku ci ne booy wax ak sa adversaire doo maas say wax bala du maas yoo xam te giri day tontu. kon moo lay wax ne bis bu nar a mettali muudu tamit Balla fëggati na koo xeer xam nga diggante ak muudu moom ku jéggaru du jeex Balla ne na muudu moom ñimewut osewul di taxaw sax di naan di di di di di réclame maanaam di di di wane ne mooy roi des arènes nee na Balla nee na muudu ñimewut loolu <laughs> ciy Balla Balla daal égal lui-même rek moom daal moom moom daal li mu bëgg a wax na koy wax daal ah waaw parce que daal xaw ma waa lu mën a xew muudu nag rek na roi des arènes loolu am na ndax Bombardier nekk roi des arènes Eumeu Sène daan ko te Bombardier ci Balla la jëlee roi des arènes ñëw bëreeg Eumeu Sène Eumeu daan ko nangu roi des arènes bi Modou bëre ak Eumeu daan ko nangu roi xëy nag Balla fa muy waxee na mu bëreeg Modou deux fois daan waaw loolu moom am na waaye nag du te terewul Modou nekk roi waaye nag Balla ne nag ko doo ko doo doo ah doo wër di ko wax de wala ca biir parcelle nga yem moom de doo aw si géejawaay de ndax xam nga la nga fa jëlee loolu waxi Balla du samay wax nag yemu ca ne na quatre combats mi des moom nee na li am ba des moom yi mu signé lu leer la ci bëgg a wane waaw da ko bëgg a gagné avec la manière de waaw loolu de la wax waaw loolu ay wax xam la nee tamit arrêté làmbam moom nee na loolu lépp mu ngi dépendre rek ci moom at at at at yi daal bis ko ko laajee mu bàyyi waaw loolu mooy waxi Balla Gaye numéro 2 keneen koo xam ne tamit xëy na tey di wax muy Balla Diouf Gris 2 lay waxal nee na ko na nga xam ne Abdou Diouf limité wul ci côté bëri pire et wax na dëgg Abdou Diouf maa ko seetaan Iba Mar Diop ca Gasson ba Euh, su ma jumul làmbi simple la woon Abdou Diouf ak a naqaree bëril ak a naqaree daan waaye nag tamit àddina day dox te at yi li fi doxaat bëri na ndax ba mu bëri Gris Bordeaux ak léegi boo ko compté parce que vingt yi léegi mu mat tey mu dem ba war a bëri rakki Gris doo koo xam ne toppaatul ci sax ci Gris Bordeaux kon defe naa tey buñ dee xool ci kombaa bi Abdou Diouf mën nañ ko moom mooy favori kombaa bi parce que li mu am ci ndam Gris 2 dajaleegu ko expérience bi mu am parce que ku daan ba daan sama Gris Bordeaux mooy sa favori waaye nag Gris 2 xale la boo xam ne am na lu mu bëgg am na lu wax Fass bëgg ci moom ndax li ko daan contre Reug Reug dina ko réparer dimanche loolu dañuy yónni yàgg waaye la ko Balla Diouf wax lu jar a bàyyi xel la de si Cissokho moom nee na Papa Sow ah. na bàyyi xel poids bi daal ne na ko lu mu ko gën a mën a wàññi dina baax pour mu mën a gën a pour explosif loolu wax ka waxu borom xam-xam la waaw loolu nag dafay am solo ci làmb parce que làmb am na ñoo xam ne poids du leen arrangé mais am na combat xam ne poids daf lay papa nag yaakaar tey li mu jot def ci làmb ak mu yegg si ak expérience bi mu dund ak vécu bi mu am ah xam naa itam xanaa dina xam naka la war a mën a préparer diggante mag Siteu waaye Siteu la tarkindaa da jàmm gën muy nuyu bàyyi jili tarkindaa bi borom itali <laughs> di nuyu sama gars yi ñoom délégué bu Siteu ñoom Siteu Bamba Touba ñoom ñëpp di ay soppe Siteu di nuyu waa jàmm gën yëpp mais noonu lay nuyu waa Parcelles Assainies ah rawatina sëñ daam entrepreneur bi sëñ daam John bool bool bi maa ngi koy nuyu du moom itam dë dëkk ca parcelle waaye du ma fàtte sama waaja Papa Guèye ah Papa Guèye maa ngi koy nuyu bu baax a baax bu ministère des finance ah maa ngi koy bigee bu baax a baax a baax a baax a baax a euh, baax Gomis di la kontaane di la ñaanal jàmm di nuyu ñëpp ñu doon suivre ci Equivox TV waaye di wax ne daal weekend bi moom nar naa xum mu nar naa neex waaye bu leen ko fàtte léegi ci kanam stadium Iba Mar Diop ak Paf Production ndaje Papa Sow Siteu entrée payante lay doon muy lu ama am solo di nuyu képp ku doon suivre di nuyu ah Cheikh gis nga tey tiset bi moom la maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax Gomis yàlla na sa jaam yàgg mais di nuyu sa grand frère bi moom moom fu mu ne sax mu ngi États-Unis wala ah kon Gomis le grand photographe maa ngi lay nuyu depuis États-Unis d'Amérique di nuyu ñoom Abdoulaye Mbaye ñoom itam ñu ngi tamit maa ngi koy bëggee bu baax a baax depuis Caroline du Nord mu ngi États-Unis moom tamit maa ngi koy nuyu di nuyu kullu mbër bu ne foofu ñoom fëggale ñoom ñëpp du ma fàtte ñoom Ramdan ah dinaa jum super tamit maa ngi koy bëggee depuis Italie mook soxnaam mais nuyu Jeylaani Pouy Suisse maa ngi koy bëggee tamit maa ngi koy parce que ñoom ñëpp dañuy suivre ñoom tuuti yaay Sarr ah xaajiroo suma jigéen di ñaan Asi Diagne tamit depuis nu ak sot yàlla na ko yàlla defal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm gomis ba beneen yoon lu mën a ñàkk